أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه barkeb sëriñ Tuubaa xaddiimi rasulillah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi noo ngi nuyoowaat di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seenus nonga seen mbokkum taalibe salihu sam eh, di lat nak ci nuyo bi mbollem jëwriñ universel yi nga xamni ñoo ngi ci biir groupe bi di jital jëwriñ universel Abdou Khadir mbop bu civis ak mbokk taalibe yi ñepp no ngi leen di nuyu ak kep ko xamni ni sunu borom mën naa dogal nga dégg sunu kaddu gi kon nu delu si war rek ci bind yi nga xamni mom la amal ci xasida Jazbul khulub comme ni ngeen koy amale ci jàng gi ak mokkal gi ngir jëfe ndigalul sëriñ Saliou li mu jox sëriñ Béthio mu yeesal ko ci nun te mooy waxal sa taalibe yi nanu fonk màggaluk sëriñ Touba gi waxal sa taalibe yi nanu fonk gàmm gi waxal sa taalibe yi nanu fonk xasaayiti sëriñ tubaay yi ndigalam loolu yi nag mu def ci képp ku di taalibeem góor jigéen mag ak ndaw ci jàng xasaayit ak mokkal ko ak di ko yëkkatee ko durus ngeen nekk ci jëfe ndigal loolu yi ba nekk ci mokkal jës bi ak di jéem a nap na bi ci xam lenn ci limuy muy firi nu koy ànd ak yéen ngir liggéeyale ko sëriñ bi euh, kon de tey mel na ni ci jéem a wax kem sunu xam ci xasida gi noo ngi tàmbalee ci askuru zal harshil majid zukran yulaaqihi mazid musalliman xalal waxiid bi kalkali wa kallimi muy sun lu bind kon xam ngeen ni tambali gi seigne touba dafa tambale won qasida gi tambale ki turu borom bi muy bismillahir rahmanir rahim waaye façanse rek da ca tegoon sante yalla ak julli ci yonente bi alayhi salatu wassalam waye cant gi nak da ko defon ñaari xaj xam ngeen ni ak cant ñaari xaj la li ñu at tahmid ak li ashukru nga sax moko ci laka shukuru wa taxmiidu yaa xayra maaliki xalaa man lahoo saxbun xalaw kulla saaliki cant gii di taxmiid te mooy cant gi nga xam ne aw làmmi koy def ay kàddu lay doon ak cant gii di sukkuru te cant gi nga xam ne day weesu wax nag dees koy jëf ginnaaw bi nu ko takkee ci xol lu nuy jëf la màndargaal ko ñaari cant yëpp kenn doog nga ko yelloo te mooy jëmmi sunu borom subhaanahu wa taala loolu la Sëriñ Tuubaa def nag bi mu daanelee cantu taxmiid mooy li tàmbale alhamdu lil xaqil biin ak ahmadu rabbi alxasim ñaar yëpp mi ngi ko jëlee ci baatub taxmiid mooy sant yàlla ci kàddu léegi nag moo ngi ciy teg nag cantuk sukkuru te moo cant gi nga xam ne des koy màndargaal des koy jëf looloo tax alxuraan ba muy soññi Seydina daa ku ñañam ci cant gii di sukkuru waxu leen wax leen waaye dañ leen jëf leen moo tax nga dégg ihmalu ala daawuda waaye shukran wa qalilum min ibadiya shakur jëf leen ak cant yéen ñooñ daawuda jëf leen kon loolu cant googu lu nuy jëf la lu nuy màndargaal la lu nuy jëf la du yem rek ci lu nuy wax bu yemee ci lu nuy wax taxmiit lañ ko tuddee waaye saa yu màndarga woon a jëm ci jëf bu boobaa nag day weesu taxmiit day ñëw ci sukkuru euh, loolu yi nag la la Serigne Touba def ginnaaw bi mu defee tax mi dañuy ashkuru léegi nag maa ngi sant cantu jëf salxar boroom aras almajiit jay aji tedd shukran ak cantu gog yolaaxiihi danaa ca dajeeg masiit ak ndolleen musalliman mbir mu may aji julli ak di sëlmal mooy di ñaan xéewale ku mucc Halal waxi ci aji wér ja di yonenti bi alayhi wasalam wasalaam go gi nak bi kalkali maa ngi koy def ci sama xol Wakalimi, diko di wax ci sama lamin muy gaw ci sama jef bayit bobu melna ni serigne bi def ci wax ni mo ngi sante yalla mi mom aras ju tedd ja cant go xam gumay mandar gal la ci ab xolam di tuddu tudd ci làmminam way fas ko yene jefit ci ay mo mandar cant googu yi nag mooy cant gi nga xam ni dana ci dajeeg ndolleenu yàlla ndax sunu borom moo waat ci alxuraan ni la in shakartum la asidannakum giiñ naa man yàlla ni su ngeen ma santee cant gu ngeen mandargaal jëf ko maa ngi giiñ man yàlla ni dinaa leen dolli moo tax Sëriñ Tuubaa nee na cant gii ma koy sant dinaa ci dajeek dajeeg ndollenam dinaa ci dajeek dajeeg ndollenam ak cant xeetu jaamu yàlla yëpp moo ci féete kaw Sëriñ saali wax na ko Sëriñ Béthio fekk addisu qudsi yi moo ko waxoon di kàddug suñu borom dani ashukru xibadatun min al xibaadaati akramuha wa ashaduha ak cant ak ak jaamu yàlla la gu bokk ci xeeti jaamu yàlla yi waaye mu def ko afaan lu tafdil nag ne akramuha moo ca gën a tedd moom ak cant waaye wa ashaduha moo ca gën a jafe ak cant jafe gum jafee tax ñi koy def ñu néew la ñuy doon moo tax suñu borom nee na majorité nit ñi duñ ko man ñoom kon la gën a néew a koy man walakinna akshara nnaasi laa yashkuruun lépp ci nit ñi duñ sant wa qalilun min ibaadiya shakuur li ko indi mooy ak cant dafa jafe yombul lu jafee jafe jafe jafe jafe la looloo tax sax sëñ Tuubaa nee na ndol leen li nga xam ne yàlla diggée na ko ci ak cant day yëmul rek ci dolli say xéewal waaye dalay dolli ci gépp fànn dolli ci wér dolli ci mucc dolli ci ay xéewal waaye nee na day dolli lépp lu lay tax a texe kullamaa lépp loo xam ni rek neena yudkhilul jannata dana la taxata bi aljana dana doli lola waaye du yam idoli lol waaye day doli ci lepp lu lay fegal sawara wa kullama lepp lo xamne yak fi ka minan nari lepp lo xamne dana la fegal sawara ndolli nu cyant dalay doli lola. loola nga sawara ndolli nu cyant dalay doli lepp lu lay xëc di la gëna jégel aljana kon ndollen li yëmul rek kii xéewal ay ak cant daa ba sa lepp lay dolli seigne tuba agna sax ci ne dana la doli lepp lo xamne dana dox sa digënté jëf ju ñaaw ta dana la dolli lepp lo xam dana dox sa digganteeg ak def ginaaw loolu àgg na ca kon gis nga dolli lu cyant non la mel ndax ak cyant da da da daa kawe ndax da bok ci xéeti jaamu yalla yi nga xam ni ku koy def yaa ngi jëf jëfiinu sun borom te defi woko ne ko sun borom di defé ndax sun borom da sax ci di sante bopam mo tax Sëñ Tuubaa nee na kon maa ngi sant yàlla mii borom aras ju tedd ja cyant go xam ne dinaa ci ak dolle ndax moko ko digé cyant goge mang koy gungé nak di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne aji wéet ji manam yonent bi nga xamne yalla koy ci lim doon ba lim doon ken doonu ko te ken doodu ko doon to la way doon de ci lim doon nga koy jele neena nak sama xol bi la sama cant gi joge sama lamin wi diko tuddu bu ko defee ci fi di jëf yi jëf cër yi di ko màndargaal euh, Sëriñ Tuubaa nag mel na ni day bëgg joxagn nak len ci liko tax di sante borom xam-xam yi dan ne cant mom ñaari xaaj rek la li ñuy ashukurul muxayyad ak li ñuy tuddee ashukurul mutlax cant goo xam ne dangay sant yàlla te doo ko tër ci dara maanaam sant naa yàlla ci lépp lu ma xam ak lu ma xamul am na ci borom xam-xam yu ni cant googu féete kaw ku mel ni imaamul imaamu Shaafihi loolu la wax mooy cant goo tërut ci dara waaye imaamul Maliki mii nu Sëriñ Tuubaa royloo moom daa mujj ne déedéet sukkurul muxayyad moo sut moo ëpp doole te mooy cant goo xam ni danga koo aj ci dara. maanaam li mu bëgg a wax mooy lan xam nga ne yàlla yeyoon ak cant ci loo xam ak loo xamul waaye saa yoo yëkkatee ak cant yaa ngi koy sant ci loo xam ak loo xamul waaye la ca gën mooy sa cant ga da nga màndargaal ci dara ne maa ngi koy sant ci nàngam mu yóbbaale li ma xamtikoon bin laajee imaamu Maliki lan moo tax nga wax ni sant yàlla joxañ lim la defal ba tax nga di ko sant cant googoo sut mu ni buñ seetee ni yalla jàngalee ak cant lepp noni la ko défé moy sukkurul mu xayat cant gun tënk ci dara sun borom fu waxé waxee ak cant ñeal na ma sant leen ma day mel day joxañ lu wara tax nu sant ko gis nga waskuru nixmatallahi sant leen yalla ndax moy ki leen defal xéewal yi ngeen am gis nga kon day mel joxañ na ay xéewal yi mu defal ba tax mu yallo sunu cant nga xamni ni lum ko tek rabbil alamin sant ñel na yàlla ndax lan mooy borom mbindeef yi nga yëg ni yow ci mbindeef yi nga bokkoon moo la sàkk borom mbindeef mooy lan ki bind mbindeef yi kon bind gim nu bind te bind gi waru ko bind googu war naa tax mu yàlloo sunu cant gis nga saa yi tuddee ak cant day day day day day day joxeñ dara gis nga sax waa kër yonent yàlla Daawuda bi mu leen di wax ngeen jëfu cant da leen a fàttali xéewal yu bari yu leen defal ولسليمان الريح قدوها سهر وروعها سهر وأصلنا له حين القتل ومن الجن من يحمل بين يديه بإذن ربه ومن يسخ منهم حن أمرنا نسقه من حساب سهير يحملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات دوغ واخ اهملوا على داود شكرا تود خيول gu نيكون ناك nag نين ما سانت sant ما لين ديفال خيول يوي ييب غيس gis nga sax Seydina Suleymaan bi mu koy wax ngir mu suñu borom dafa àgg ci wan ko ay xéewal yu baree bare fàttali ko xéewal lim ko defal yëpp ba ci xam sax li picc yi wax bokk ci xollim naa mantuqa tayri wa uutinaa min kulli shay'in moo tax suñu borom dafa dem ba yàgg mën ko yii xéewal nag li yabluwanniya askuru am akfuru min fadli rabbi li yabluwanniya askuru am akfuru kon gis nga alxuraan fu mu digle ak cant ak di ca soññee day joxañ mandargam moo xam ni da cee wane ni doonuma ab dictateur rek ak bëgg leen a force ak cant déedéet damaa yalloo seenu cant ngir lii ma leen defal ak fii ma leen féete loolu lañuy ñuy tudde cant mu xayat mooy nga ne maa ngi sant yàlla ci nàngam donte it sant ko jaadu na ci loo xam ak loo xamut waaye ngay joxañ dara bu ko defee nag loolu lii nag la Sëñ Tuubaa def moo tax mu ne sakkartuhoo sant naa ko mu mel dañ ne ko lu tax mu ne cant gi kat li tax mooy is ngir khassani moma jaglel bi xidmatil maahi may liggéeyal yonenti bi nga xam moy aji far bakar. bàkkaar almaahi firi far bakar di faru kefer ci nit assanni yonenti bi nga xam moy aji yëkkati kuy daraja saa khidmatin mir mu may aji sax ci di ko fil halani mu don liggey bu feñ bu ñepp tek beut te ken duutu ko werante lëxoo ñeel ko mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam. te rasulillahi moom i kat wa fakka dajji na walla mii sama jéng ah, wala wala mii sama tënk Sëñ Tuubaa nee na cant gi kat fi ma koy joyal jëme mooy ci yàlla ngir moo ma jagleel ma doon xadiimu rasul jagle mooy lan mooy loo xam ne dan la koo defal yow képp dong fekkoo ci kenn te kenn du la ci fekk fii Sëñ Tuubaa ngi bëgg a wax xadiimu rasul gi mu doon xam nga bu ne yàlla damaa jagle ndax jagle mooy loo jagoo xasatan kenn fekku la ci te doo ci fekku ci kenn te kenn du la ci fekk su waxee loolu nag sa xel dana dem ci ne am na ñu daan liggéeyal yonent bi te ba tey it sax am na ñu koy liggéeyal waaye déedéet ñaari liggéeyinu yonent bi moo am daa am liggéeykatub yonent bi tudd xaadimul rasuul ak liggéeykatub yonent bi tudd xadiimul rasuul ñaar yëpp nag Sëñ Tuubaa doon na ko. waaye xaadim sax am na ñum ko doona ndool waaye moo leen ca sut te du ko seen moroom waaye xaddiim nag doona ndoowu ko kenn moom rekk ko mos sa doon luy xaadim ak xaddiim xaadimu rasul day fii di sax kiy liggéeyal yonente bi waaye baat bi ci arab ismu la soo ko indee mën naa firi liggéey bi nga xam ni ki la koy liggéeyal yow mi mu koy liggéeyal mënal nga ko sa bopp xay na sa jot la ko mayul wala sa yitte mu féete la fa lolou lañu tuddé li mel ni min nan mi ci kër gi di liggéeyal patron gis nga kamuy liggéeyal lam koy def lo mo man nako bëré balé kër gi patron bu jigéen ba man nako man na raxas ndab yi man na fóot yéré yi man na topato yam ko topato lo waaye xeyna ak jotam ak ko mayit wala ab liggéeyam mu fété ko fofé moy ki lay defal lo man ta manal ko sa bop mu wutula ca lolou lañu tuddé khadim ñu bari doonon nañ ko ci bi anas ibnu malik radiyallahu anhu kenn la woon ca ñoom ca saxaaba ya ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye xaddiim nag boo ko indee ci ci tasawuf xaarifoona billaay dane mooy ki lay defal loo mënta ñàkk te mënaloo ko sa bopp ci saaxir ki lay defal loo mënta ñàkk te mënuloo ko sa bopp ba pare siixatul mudaarixa la ndax ismu faxiil la te loolee liggéey lay doon boo xam ne du am contrat fu muy yem maam day sax dàkk day sax dàkk antal kariimu anal xadiimu daxaran uddi mu fikka sanaa yi bu dee xaadim lay jëkk a wax Sëriñ Tuubaa doon na ko te loolu fàggu téefug yàlla la ci moom yàlla ko ko jeglee sax nag moom kaw ni ya xaadima rasuli wal kitaab fadlun min al wahaabi la min iktisaab doon gi ma doon xaadimu rasul di liggéeyal yonent bi doon xaadimul kitaab di liggéeyal alxuraan ngëneel la lu ma yàlla jagleel waaye dii su ko fàgg loolu wax na ko xaadimu rasul sax ngëneel la waaye xaddiim nag moo ko sut xaddiim mooy li nga xam ni du du waajee ko sàkk wa defal yonent bi yonent bi ci jëmmi boppam moo jug dem ba ca yàlla communiquer moom ca communication ya muy communiquer ak moom sàkku dikkuk Sëriñ baa ngir féete ko ci xaddiim foofu rek boo ca yemoon li ma la wax dana firiku loolu kenn mësu koo am te kenn duutu ko am koo xam ne yonent bee sàkku nga ñëw liggéeyal sil ko bokkut ak ku yëg ni yonent bi ku ko liggéeyal jariñu ku ko liggéeyal ku nekk mu doon ngëneel ci yow te ëllëg nga jug di ko liggéeyal loolu bokkut ak koo xam ne yónente bee yëg ni mënoo ñàkk ci ab liggéeyam mu jug sàkku ci yàlla mi nii sàkkoo lépp ngir nga ñëw liggéeyal ko loolu mooy Sëriñ Tuubaa raama rasulullahi min ilahi kaw nii xaddiimahoo waxul xaadimahoo nag xaddiimahoo wax abdallahi xaddiim moom yónente bee ko commandé ca yàlla ngir ma ñëw doon si ko kenn mësu koo doon te kenn duur ko doon yaa ngi dégg xaadim nag ku ne doonoon na ko tabaax na itam على talaba ka unni al له lahu salama zil bariyat al moo lolou motax seigne touba neena liggey bi mi liggey yonte ban liggey la luy khadim moy ki lay defal lo meunta ñak te meunu loko sa bop luy lola. moy yonent bi da taxaw ñaari taxaway yonent bi da taxaw ci wet guni ñuy tudde saahiran muy sahir ak wet guni tudde muy batin haqiqatul muhammadiya da am muy mbirum batin ma deug deug li rasul doon loola moo mag mbindéef yi loola moo mag nit mag jinne mag malaaka mag maamam yi ci leen sàkk ñëpp ndax loolaay cosaanam mooy leer ga réalité ba min nuurihi kullu nuurin saatikum bi sana nuuru nujuumin wa nuuri samsi wal xamari wa huwa al habibu lasi li ajlihi xulixat xalaa'iqullaahi kal amlaaki wal basari mooy réalité rasulullah salaa salaam nga xam ne principe boobu wuute wuute ak principe bu yàlla ba ndax leerug suñu borom la subhaanahu wa taala ñi xam loola waaye loola du tem bi wax ni li tax ma bëgg laa leeral luy xaddiim ki lay defal loo mënta ñàkk bi mu doonee wetug baati nit daa doon wetug saaxir moo tax kuntu xaari fan wa aadamu baynal maay wa tiin doon naab yonent bu xam sama borom te booba maam aadama sax manqué banag ndox sàkk gun ko kon buñ demee ba sàkk aadama aadama jur ay nit ba jur ca ku tudd Aminata ak Abdullahi ñu ne la ñoo du ñoo jur yonent bi sekkare la waaye yonent bi lam doon ci lañ sàkke aadama loola am na te aadama amul te aadama mag Aminatu nag dëgg yàlla moo magit Abdullahi léegi batin baatin nak nak li yonent bi doon aqiqatan lolé kenn xam ko kudul yalla yàlla loolu yonent bi wax nako ci hadith la yahrifuni haqiqatan rabbi deug deug sama aqiqa sama realité kudul yalla sama borom xamoko ko loolu yonent bi wax ci hadith yalla momé nak xam ko te kudul mom xamoko mo tan Serigne Touba xamal ko ko ba dara umpati ca dama wax luy qaddimu rasul lenn ci li fi mëna a ñëw sax la lay wax yalla tan sëñ tuba xamal ko aqiqatu rasulullah ya ngi deg sahiratan wa batinatan yëmut ci xamal ko ko wan ko ko itam mu gis ko ba amutu ci ak umpule nga xam da ko xam xam xam bu yaqeen ci xam ak yalla xamalal ko ko bopam na wan ko ko bam tekki bëtam taw wamal xabaru kal hiyani borom xam xamé dañ ni sëñ tuba sax bindina ko ben xam-xam yëmut bi nga jàkkaarloog sa bet dund ko ya ngi deg ñaar yëpp la boole nak xam ko ak dund ko luy xam-xam bi ko yàlla xamalee boppam sin bi bind na ko ba demee ci muqaddimat muqaddimatul amdaa dafa wax ne xulumi wa xirfaani bikallahu qaadaha ilayya fa anta al muntaqa wa samaysahu looloo tax alayya li wati llaahi jalla jalaaluhu lakka dahra amdaahun masaayaaka tarfawu sama xam-xam ci yonent bi te muy xam-xam buñ mën a bind ak sama xamiinu yonent bi ci xam-xam bundul bind lu yàlla la koy enkewal ñaari xam-xam yooyu ma dajale ci moom ba xam dëgg-dëgg mbiram loola di lu ma jàng ci benn tiire baa ma jàng ko ci benn siira moo Sëñ Tuubaa foo jële loola mu ne yàllaa ma ko wammatalal boppam xamal la ma ko boppam moom mi nga xam ne ku dul moom xamoo ak aqi xaam yàlla rek ma ko xamal yaa dégg daan ne looloo tax nag yàlla gàll ma mu war ci man mi nga xam ne man doo nga ko xamee dëgg dëgg xam-xam mu war ci man ma sadd ci moom nag ay ay bayit maanaam ay way ay xasayit liggéeyale ko ko ngir wane ak màggam comme maa xam li mu doon maa ko war a wane ndax yonent du mën a wane boppam ndax ana ana lay saxuwa mooy liggéey bi nga ne mënulu ko boppam ndax kenn mënta wane sa bopp yaa gi dégg donte sañ na ko du ko man waaye Sëñ Tuubaa la yàlla xamal lépp ba noppi daat koy sas mu war koo xamle yonent bi sàkk mu ñëw nag war koo wane yaa ngi dégg loolu sax bo demee ci nur daarin dana gën a leer da nga ne halal bi ubdi hula xaddimu rasul gi ma doon ci moom ci laay ak kon magam nga maa koy feeñal ci bir xaddim gima doon ci mom wane batinam ba kenn ku ne eh, eh, xamaat li manqué sa digganteeg yonente bi moo alhamdul xaddim gi Sëriñ Tuubaa tudd firi mooy ko xam kenn ku ne li nga manki sa jaamu yalla mooy seetu bi nga xam ne ci nga koy gisee moom moo doon jaamu gu mat gi ku ne ci ak matam ngay xamee sag manki ci ak jaamu waaye Xaadimu Rasuul ni muy liggéeyal yonent bi ak jox ko war ma jëm war a am ak teg ko palaasam kenn ku ci nekk la manqué sa digganteeg moom ca loola ci liggéeyub Sëñ Tuubaa nga koy xamee ndax moom moo ko matal sëkk ndax moo ko xamee nu ko kenn xamewut loola yàllaa ko yàllaa ko ko def yaa ngi dégg loolu nag moo indi xaddim ji moo tax mu ko mu di ko wane moo tax mu ne araytani sirra rasulillahi yàlla yëmu ca waaye Eh, da da daf ma wan secret ba ba dara nëbbatuma ci waxaala la ilaha illallahu xaw naa eh, taataar sax ci leeral loolu waaye li ma bëggoon a leeral rek mooy sakkartuhu isqasanii bi xidmatil maa hissanii maanaam yàlla damaa jagleel moo tax ma di ko sant ma doon xaddiimu rasul kii liggéey yunti liggéey bu sax dakk liggéey boo xam ni mënalu ko boppam te mooy feeñal lim doon te lim doon ku dul yàlla xamoo ko waaye yàlla ma ko xam man la ko xamal ba ma xam ko xam-xam bu ànd tuta kumpa mu wan ma ko ba ma gis ko gis gu ànd tuta kumpa mu gàll ma nag ma war a ñëw wane kan mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ahmadul xadim waxal boppam nii ku njortu ne man ngaa liggéey yonente bi liggéey bu mel ni bi ma ko liggéeyal na faytu sannahoo bi anniyal xadim wallahi bi maa wanaaxan mislihi kullu xadim ku njort ne mën nga koo liggéeyale ci liggéey bu mel ni bi ma ko liggéeyal dajji naa su njort li sànni ndax seytaane la war kenn duutu ko liggéey liggéey bi mel ni bi ma ko liggéeyal ndax sëñ Tuubaa ne mu def yonante bi kenn mësu ko ni def te kenn duutu ko ni def ndax loolu nag yàllaa ca ànd loolu ni ma la ko waxee xam nga ko loolu mooy sakkartuhu is xassanii sakkartuhu sant naa ko is ngir xassanii jagleel na ma moom yàlla bi xidmati ma doon kiy liggéeyal almaahi yonente bi nga xam ne mooy aji far bakkaar nii yonente bi nga xam ne mooy aji yëkkati kuy daraja saa xidmatin mbir mu may doon ki koy liggéeyal fil xalani mu doon lu feeñ lu kenn dootul werante loxoo ñeel ko yonente boobu nag wa fakk wala mii moo dajji samay jéng maanaam ñaari prix nga koy jox wa fakk wale mii man nga koo jox prix eh, daja gim daja woon ak ay noonam noonam yooyu bëgg koo tàqaleeg lim doon dox digganteem ak yàlla ak yonent bi ba tax ñu koy teg natt bu ne yonent bee dox digganteem ak loola ba mën a luñ ko dara comme mu ko waxe woon ci imsi wala tax sab darar mën naa firi wa fakk wala mii foofu waaye man nga koo firee it jéngi yi dox diggante jaam bi ak yàlla ba na nam bëgg a yegge ci boromam du cee mën a ni yegge man kat jéngi yooyu yonent bee ma ko dogal ba ma yegge ci yàlla nu ca kenn mës a yegge te kenn duutu ca yegge ndax walay sa taxtawil wusula lil jalil bi xëy di xattil xaqabaat ya nabil kenn du làq yegg ca yàlla lu dul ne dog nga buumi gàllankoor ya jéng yooyee yëpp nag moo ma ko dajjil ba man damaa sës ci yàlla rik sësin woo xam ne nee na ku ngeen romb mu ne yegg na ci yàlla ni ma ca yeggee lu ngeen yàkkamti yàkkamti Sëñ Tuubaa nee na taxaw leen ne ko kasabta Sëñ Tuubaa aka bari teggin aka bari war ma aka mën a maslaa aka baax waaye nag nee dégg ku ne yegg na ci yàlla ni ma ci yegg daal ko ko def loo yàkkamti yàkkamti war ngaa taxaw ne ko ah kasabta boo ko mënta wax ci laa làmmiñ ne na ko sab xol wax rek ahmadu kenn du moom moo tax kon foofu la ñuy yem tey ba subaak jàmm incha allahu taala kon nu jaaraat rek ci piri mi askuru maa ngi sant salxar si boroom aras almajid jay aji tedd sukkuran ak cant gog yulaa xiixi danaa dajeeg ca cant googee masid ak ndolleen musalliman mbir mu may aji jullee ka sëlmal xalal waxi ci aji wéjje di yónente bi bi kalkali ki sama xol wakali mi ànd ak sama làmmin chakartuhu sant naa ko is ngir xassanii jagleel na ma bi xidmati ci may liggéeyal almaahi yonente bi aji far ji bàkkaar assanni yonente bi aji yëkkatiku daraja saa xidmatin mbir mu may aji sax ci di ko liggéeyal filxalani liggéey bu feeñ na dàng lu xoo ko moom rasulullahi wa fakka dajji na nag moom yonente bi wala mii samay jéng wala wala mii samay tënk lu ci dëng lu nekk sunu matadi la ak sunu gàtt xam-xam nu ngi koy jéggulu Sëriñ Tuubaa lu ci jub nekk nag noo ngi ko koy sante di ñaan mu nangul nu ko te tiyaaba ji mu nangul nu koo defal addiyam bi barkat Seexna Seex Ahmadul Xadiim jërëjëf